Je ah. veux sinon comme ni nga ko waxee gis le Sénégal hein? Ah, nos dirigeants ne nous respectent pas mais nag bàllee ma gars yi balaa maa dem foofu tam mais tam gars yi sama gars yi la montagne a accouché d'une souris ah <laughs> patriote yi ak ñoo bon nag que nous avons dit, naan mais ana Hélène Gay xool leen ko balaa moo xaru parce que dégg naa ne gars yi ma ne Hélène Gaye spécial live la ci def waaw foog na moo tégal gaynde gi moo laa xoolal kii nan la mën a waxee yow te joxul papaam xool leen déglu leen nee na joxu ko lu mu lekk ñu ngi nii xool leen seetaan leen papaam na joxu ko lu mu lekk ma gis gars naan xool leen Hélène bu mu wét buy wét di xaru ñeneen ñi naan xool leen xaw ma Mati Drabam buy wét xaru ñi naan xool xool leen kii lu mu tudd Anita Diop buy wét di xaru mais gars dañ feebar dama leen a duulloo nag patriote yi ak ñoo soxor surtout gel yi ak ñoo soxor matériel yi matériel yi ak ñoo soxor xool leen yow ñoom xam ne dañuy defante hmm? xool leen yéen Hélène ba xam bu wéete xaru <laughs> ñi naan leen Anita Anita bu wéete xaru ma leen matériel yi toog leen bàyyi leen defante bàyyi leen defante <laughs> non dama leen a jekku nag barke alxuraan dama leen a jekku <laughs> ñooñu foofu mais affaire bi dama bëggoon mu yem foofu en ñu may fowé ñom matériel yi kii nu xam nga nu ma doon fowé élément wu Macky Sall pour wan leen ne amu leen serveur doo leen fofu la laa bëggoon mais bu mu démé ci plateau ay Sénégal bi toog diko ci débat hein? nga gis ko xéssal ba wax tàll tok ta di ne fàcc waaye loo leen xalaat ci mo la yoon yow lu mu wax ni papaam de lu mu ni ne la ko jox ko lu mu lekk dé yow jox ko lu mu naan fàcc xéssal ba wax tàll pàcc tok ci télé du doon journaliste dé té bo waxé sénégal yi ne non journaliste bi journaliste bi moom moo la wax ne journaliste la kii de xam ne lañ ko tànnee ay taat yu rëy moo tax ñu indi ko wala ay ween yu moo tax ñu indi ko wala xolal wala euh, ween yu dijj moo tax ñu indi ko wala xees xees xees bu mu xeesal moo tax mu toog fa de toogu fa ndax xam na toogu fa ndax xam-xam toogu fa ndax diplôme toogu fa ndax expérience toogoowu fa lu dul ndax dafa ponkal wala dafa fees dënn bi rëy wala taat yi rëy wala mu amee ange wala mu xeesal ba weex tàll noonu la fa toogee man balaa maa dee da ngeen a journaliste journaliste laa ko gisee yéen pour yéen ku toog ci plateau journaliste la mu laa Seneweb gis nga débat bi ñu fa toog ah waaye ay journaliste waay waay Sénégal a neex ñu ndax comme neex journaliste yow daal kii ñu jël ko ndax ay ween yu réyam mu toog fa di ratatati amul daraay journaliste xamul daraay journaliste musul jaar ci benn école journaliste xamul sax lu rôle journalisme ñu dañ koo tànn ndax ay wen yu rëy buy ñëw saa yuy ñëw ci ween yi da ngay gis mu tóoj ko ba mu ne pan ba mu yegg fii ween yu mu tóoj ba mu yegg fii nga xam ne du sax mën a siggi ndax ween ween yu kale wala ween yu naj bopp bi ay yu mu tóoj ba mu ne nii ba ba ween fii lay nekk fii mais moom da koy tóoj ba ween yi def nii ba du siggi mu tul ko ñu teg ko ci plateau bi mu sol lu xotteeku ween yi na wàŋ nii waaw nag débat bi nag du am bopp du am genn ay débat lekkul la ay débat naanul waaw mu def décor génne ween yi ba mu ne pàngaran gars di yëm <laughs> ween yi xees na de ween moom xam dañoo am problème xees ween yi xees na de ween meew di ñu ñeneen ñi journaliste la de journaliste bu Sénéweb journaliste bu Sénégo journaliste bu Walfadjri journaliste xamul sax luy journalisme moo tax débat bi du kawe parce que moom taatam ay ay ween moo tax mu toog fa keneen ki taat yu rëy yi def nii moo tax mu toog fa xamul dara ci journalisme du journaliste jaaru ci benn école amul benn diplôme moom dañ ko fa teg ndax taat yu rëy bu mënee toog ci sées bi mu fees dell mu mën a toog ci sées bi feesal ko dell waaw yaay fonde amul pertement yore wax ji nag ay débat inutile ah joxu ko lekk de ah moom papa ji lu mu oh, ko mu naan oh, xool na ko ah yow oui yow mais kon kii war a wax yow yow ko kii joxul papaam di joxul yaa nga gis ay dof toog di ko seetaan kenn ki moom xeese bañ nañ ko ba <laughs> ñu promotion canapé ko lu gën a garaaw nag ñoom ñoom der bu ñuul waxuñu ci dara plateau télé yi boo wër plateau télé yi plateau télé yi boo wëree quatre vingt dix pour cent quatre vingt dix pour cent ci plateau télé yi boo wëree lépp dañoo xees quatre vingt dix pour cent ci plateau yi télé yi plateau buñ teg kat jigéen ñi bu dee bu dee quatre gàll la trois yëpp dañoo xonk coy Sénégal mooy dëkk nit yu ñuul.

Ah, nga ñëw indi say kii ñu ah kii daa ñuul de ah kii daa ñaaw plateau yi duñ fa teg ku ñaaw <laughs> fekk ku ñaaw gel yi ku la gën a ñaawal a dàq jàng xool leen ko seen classe yi bu ngeen fa nekkee gel bu la gën a ñaaw moo la dàq jàng ñun de benn gel moo ñu jommaloon suñu cursus scolaire elle s'appelait Nadège Mademi Nandeki turam ba léegi danga ko jàpp ma Nadège Mademi Nandeki genre njaaga yooyu la ñaaw mais mais premier bi kenn du ko laal moom mooy bàyyi moom mooy yaay ji devoir bu ñu pare moom mooy njëkk moom la njëkk wax na dees ma demi na ndekki moom boo bokkee moom classe sax danga nga naan pertinent premier mënuma ko jël ndax ñaawaayam mais yàlla may ko xel boo xam ni bopp bi baax da ngay bind du bind day toog rek di capté tak tak tak ngay wax gars di bind moom muy capté te boo ñëwee devoir dix neuf dix huit vingt dix sept cinquante dix huit yooyu rek lay am dix huit cinquante dix huit oh mais ñun dañ dem ragal ko. ndeysaan maa ngi sama beneen copain Xaadim Rasul Ndiaye bu ñu ñëwoon bu ñu ñëwoon école ubbi rek ñu gis ci classe bi ñu dugg ñun ñaar dañoo yàgg a pour bokk classe sañuy gaañ sama ñoo ñoo màggandoo jàngandoo Xaadim Rasul Ndiaye quoi. te ay jàngkat lañ nag moom yaayam enseignante la. man man tam seen famille dañu ñu cadré ñu mus a cadré ci jàng bu ñëwee rek dugg ci classe bi rek fekk na des toog ñu ne wuy sama ndey booy xaar xam naa yaa jël deux ma jël trois wala ma jël deux nga jël trois xaarim ne ma booy tey ñoo jéem a xool lu ñu changé classe ñu dem ñu dem troisième B wala ñu dem troisième C. <laughs> ma ne ko ah moo doon gën de léegi moom tasaaroo dina ko laaj parce que fii bu ñu fi toogee duñ laal pee de dëmm baa ngi fi de na des ma dimi na dékkee ngi nee toog de te da koy da koy ndékkee de moom pee bi da koy ndékkee. bu ko defee ñu génn na commencé lijjanti pour ñu changer ñu ay classe <laughs> seconde ñu tasaaroo maanaam moom mu dem fii ma dem fee ndax na des ma demee na ndékki bañ fa fekkoon waaw wurit mu toog ñu ne wo fii bu ñu fi duggee yàqu ñu tasaaroo <laughs> mu dem <laughs> gauche ma dem droite ñu bàyyi fa na des ci boppam parce que bu ñu fa toogee duñu am fukk fukk duñ ko am loo jàng jàng jàng jàng jàng boo ñëwee mu ne ko furux ndékkee ko not yi moom du taxaw sax di xaar ku la gën a ñaaw ci gel yi moo la dàq jàng parce que xam tax parce que dafa xam ne ñaawaayam gars yi sénégalais duñ ci tànnee jigéen léegi day jàng ba am ay diplôme am jàng ba liggéey tegu ci situation yu baax ñu doog la respecté donc moom ñu sont intelligentes mais gel bu jël xelam yëpp def ko ci defaru du aay souvent déglu leen loolu noonu expérience la dama ne gel buy jàng ñaaw ñuul wala mu ñaaw xees parce que dañuy ñoom ñaawul Sénégal dañoo jël ñaaw def ko sul ñuul musuñu moo gis gel bu xees bu ñaaw duñu wax loolu seetlu leen loolu aliénation culturelle bi la gel bi de dafa xees mais ak a ñaaw gel noo boo xeesee rek dangaa rafet <laughs> boo ñuulee souvent da nga ñaaw lañuy ñuy kon donc ma ne gel bu xees bu ñaaw parce que ñoom Sénégal tàmmuñu di dégg loolu gel bu xees bu ñaaw ak ka bëri gel yu xees ñaaw mais Sénégal ñoom gel bu xees day rafet gel bu ñuul tane na rafet na mais xees moom amul amul tane na amul ñaaw na rafet na bu xeesee rek rafet na la Sénégal bu ñuulee ñu ne ñaaw na wala ñu ne tane na wala ñu ne ah rafet na gel boo gis mu jël temps di ko defaru gel boobu du jàng <laughs> du aay gel buy defaru du jàng boo ko fekk mi ngi defaru temps bi yëpp ci defaru la koy def exactement la sécurité de la femme c'est d'avoir un métier le ku qui ki t'as day tar wala mu pour métier pour un diplôme il faut fekk ci en di copies, des jël ay euh, copie noter di bind pour ngay ñu nekk ci high class bureau yi ci kaw boss mu du mu munuñ kenn duñ ne dafa rafet dafa rafet trop déedéet mais moo koy jiite mais kiy toppatoo ay capp-cappal ak fii fii maquillage capp-cappal du jàng dara buy dem classe sax day bugg ñëpp ne ah elle belle kon ñun sincèrement problème mu cerveau lañu am loolu mooy feeñ fépp série yi ñu jigi xees yi lañuy tànn buñ tànnee ku ñuul ku ñuul sax day ñaaw xool leen ci série yi ke liñ ciy jël ñu ñuul souvent dañuy ñaaw ni ñuy jàpp ne ñoom dañuy ñaaw ñoom daal xees rafet ñuul moom day xaw a ñaaw wala mu tane wala amul moins de chance la am pour ñu ne rafet na problème bi problème mu cerveau la problème bi problème mu réflexion la problème bi problème mu toog di analyser la problème bi suñu suñu média yi dafa médiocre warul sax warul tudd sax média médiocre lay tudd média foofu média Sénégal bëriwul média médiocre Walfadjri ma gis fa benn dox bu fa toog di animé mais kooku apologie du terrorisme la doon def tey apologie di terrorisme <laughs> ci bu doon dëkk yi développé boo gisoon kooku boo bu ko defoon famille bi nga xam ni moo appelé famille bu ñu agressé famille bu ñu buggoon rey dañuy dem porter plainte kooku noonu toog ci plateau yi di def apologie du terrorisme toog ak ñoom sandiogu dofe eh, dof dof xawma dof lu tudd xawma lu mu tudd waaw moom dafay saaga kii kon man boo kii dama koy taal dama koy taal ko war a taal parce que moom dañ ko war a taal waaw waaw waaw que moom moom dafa saaga kii wala dafa xas kii donc moom këram dañ ko war a taal apologie bu doon dëkk yu am droit famille bi ñëw toog jël seen avocat woo ko da ko xool leen kii ñu enregistré dof boobu nekk wal Walfadjri di di toog ci plateau yi di wax di def apologie di terrorisme ñu porté ko plainte jël discours am boobu jël ko yóbbu ko ci procureur de la république ne déglu leen kii ngeen déglu ko gis muy def apologie naan wéyi ni ñu def noonu la dañ ko war a taal foofu nu ko taalee noonu la waaw baax na foofu la dañ ko waroon boyal ba mu boy dañ ko non <laughs> après kooku ñibbi na këram de kok day kërëm di nalaw de te suba day ñëwaat toogaat ci télé bi di animé incroyable boy ce pays là non be c'est le bordel boy c'est le bordel I'm telling you du dëkk bo xamni nit war na fa am dom diko fa bayyi parce que nit yi dañu problème mu cerveau Assane hein mais koku vrai dof la mais tay lu ngi don def apologie du terrorisme la tudd boudon deuk yi bax yi famille yi nga xamni ne ñoo dund lolu ñoo dund tentative de meurtre boobu dañuy bind dañuy wut sen avocat dañuy wut sen avocat bind plainte boole ci limu wax du fanan. mais le mal est trop profond c'est vrai c'est le mal euh, que les blancs nous ont fait subir et c'est très profond très profond. une vraie aliénation culturelle mais dof boobu Assane Mesere koku nan la mun a toogee ci plateau nan la mun mais mais waxu dof rek lay wax waxi vrai waxi dof di def ay apologie mais au Sénégal le ridicule ne tue pas ça passe souba da nga koy ah, day togat foofu ah day togat fof. légui nak lan moo tax ñuy xex li moo dañ ci bëgg jëlé ñooñu

mais pourquoi tu fait fait ba mais non ne euh, faut pas dire que il n'est pas intelligent mais il fait de la comédie la comédie c'est une intelligence c'est au Sénégal lañ japp ni comédie saga la la comédie mais c'est un art c'est une intelligence la moo sénégalais yi comédie C'est mais un comédien mais écoutez ay comédien yëngal nañ république ay comédien dañuy wax na ay comédiens yi radical tubaab yi dañuy feesal saal yoo xam ne benn comédien moo fa ñëw benn comédien kese bu taxaw nii philosophique ñu feesal ñuy rang man romb naa fi Montréal ay saal yoo xam ne de centaines de milliers de personnes yu rang ma ñëw ba jege laajte lu xew fii foog ni concert la ñu ne ma noo benn comédien mais c'est ñu mère yi paa yi grand père yi grand mère yi xale yu ndaw yi ñëpp téye ñëpp taxaw rang di jënd yor ay billets yoo xam ci internet lañ ko jëlee déjà ku nekk téye sa billet amul jënd billet ñi dem di seetaani un comédien des fois kooku wax ñu ree des fois mu wax ñu triste des fois mu wax ñu ndaw des mu wax ñu jooy des fois mu wax ñu yuuxu des fois mu wax ñu loolu mooy comédien comédie art la da nga ciy véhiculer sa message am na buur bu buggoon rey benn comédien dajale ay ganam ñëpp toog mu jël comé comédien bi teg ko fa comédien bi di wax di wax ba buur bi jóg ne nañ ko daggal bopp ak baat ñu taqale bopp ak baatu comédien bi mu ne toqali leen ma bopp bi ak baatam bi et pourtant comédien bi la fa indi woon pour mu reetaan loo donc lan moo tax Sénégal jël comédie rek def ko ay affaire golo xokkali même bu ñu lay xasal yow jé la mais wiruñu problème cerveau la am mais c'est vrai problème cerveau lañu am billahi ka dañu am problème problème mu cerveau waaye Coluche comédien lawon il était fort il était très très très fort amna boukar Boucar Diouf mais boukar Diouf fini ci Canada c'est un Sénégalais bu demul Sénégal mënu am ñaari nit. mais Boucar Diouf bu fii mais tubaab yi dañuy fees dañuy des centaines de de blancs toog taxaw nii du am sax ñaari nit yu ñuul lay am centaine de blancs ñu toog jënd seen billet rang tubaab yi di rang di ko seetaan boo ngay seetaan Boucar Diouf des fois mu ree nga reetaan loo ko des fois nga noppi des nga jooy mais ils sont forts le cas de Dieudonné en est une parfaite illustration Dieudonné da doon lu ay saal ay mairie muy dugg fa muy war a dugg ci ay saalu mairie xoolal booy koñ dëkk bi yëpp xam ne Dieu dana day ñëw ba gars yi di ko tëjal ay buntu muy xeex ak le système français système français français di ko tëjal ay buntu muy am problème ak justice et pourtant <laughs> c'est un comédien Omar Sy c'est un comédien mais ba États-Unis Omar Sy day feesal saal yi Omar Sy c'est un comédien ba États-Unis

dañ lay xas sax dañ lay xas de di la jéem waa ñeneen c'est un comédien waaye bu leen ko déglu waaye noppil yéen yéen kii moom yow le comédien de Ousmane Sonko laa Mollah Morgun c'est un comédien le comédien de Ousmane Sonko kii naan la yow bàyyi sa comédie yaa ngi châtier les mœurs en riant yaa ngi châtier les en riant Jamel de ñëpp a ko xam France mais booy Sénégal du dëkk wallahi du dëkk billahi du deuk gis nga waxuñu dara ci réflexion waxuñu dara ci analyse dañuy tayal ak réfléchir wala Molière waxoon leen ko ne châtier les mœurs en rien dañ lay reetaanloo di la wax seen soxla mais Sénégal dañ lay xasee comédien la <laughs> bu leen ko déglu parce que comédien la loolu moo tax mu won leen ni comédien day taal réew <laughs> man maay le seul comédien bu taal réew <laughs> parce que waa APR ñoom dañuy gëmloo ni Ousmane Sonko dañu am benn comédien mais comédien moo taal réew ba ñuy dem di taal kër papaam <laughs> kon boobu man maa raw Molière Molière maa ko raw de France am nañ Molière mais Sénégal am nañ Mola de mm yi Molière Mola France Molière lañ amoon mais Sénégal dañu am moola ñële parti pouvoir bi dañ koy jéem a nee nañ yoo dañuy diaboliser ne comédien la lu tax kon war nañ ko déglu bu leen ko bàyyi xel mais comédien boobu moo leen tere nalaw tere leen lekk tere leen naan tere leen génn tere leen nalaw nalaw gi ba ñu dem di agresser sax sa famille di leen jéem rey <laughs> kon comédien boobu saf na kon comédien boobu bu mu bàyyi comédie ndax comédie boobu terena nalaw président ba comité partisan président et ay comité terena nalaw ay euh, comité euh, ils sont tous sur le qui-vive kon kon comité na nga <laughs> euh, donc di man j'aime bien hein. xam nga j'aime bien je vous respecte beaucoup j'aime bien may waxtaan aussi ngeen di amener si euh, ngeen di indi sen xel ngeen di indi sen xel yi je suis vraiment ému Sen xel yi ngeen di participer maa ngi lire fi. gis nga man yi laa bëgg bu may wax ngeen di indi seen idéologie ngeen di indi seen pensée ñu ciy dolli des fois ma fàtte dara mais damay gis seen participation daf may ouvrir une brèche pour nous ko direct, rek daf may may leneen respect à grand Albouri Seck un grand quoi? bu ñëpp respecté ñëpp xam ko ci xel ak ci donc bu ñu yégalee débat bi rek ñëpp mun di participer di ma mayaale sax ay ouverture wala yuma faté ngeen di ma donc un comédien mun na un comédien littéraire un comédien biologiste un un comédien philosophe un comédien comédie du caaxaan comédie du ay foo comédie c'est un art da ngay wax say soxla mu président mu na la jël tek la ci wétam nga koy reetaan lo wax ko tous les mots de la société préparer sketch bo xamni ni koy bindé mom day sentir ni mom la sketch bo xamni ben bour bu tok xam nga ñu nek ñu koy way bouro dalé mu yow woo yow wo indi sa tur la moo la nga defal mu sketch nga ñëw tok préparé benn boo xam moom ngay illustré ci sa ci sa movie boobu tegal ko ko wut sa benn buur mu toog nii biir nga nga indi benn genre Macky Sall biir bu rëy ponkal mu def nii guuxi lex nga wut ay genre ñu nuroog ay mooy coggam yu koy wër nga wut si ñu mel noonu ci société bi ñu jël leen nga travailler leen nga xam ne dañuy gis fi benn benn ku mel ni Californie gis ba ku mel ni Mati Trois ku mel ni Hélène nga jël leen ñi ñi ñi koy fompal ay kiyam ay ñaqam nga jël benn genre ku rëy làmmiñ mu ku xaw a nuroog fuuta tàmpi bu rëy làmmiñ ay eh waay buuro daale eh maki naan ni rek am benn waay bu nga créé loo xam ne ku mel ni man waaw taxaw je ne suis pas kii buur bi naan dem leen ngeen jàppal ma ko nga créé yu mel ba xoolal Macky Sall buy seetaan dan i ñi man la waxal illustré maanaam ni Macky Sall di doxalee régime am mi ngi ree mais yaa ngi koy saw ah kii man lay waxal kii buur bi kay boo ko gisee la xam ne man la kii sama illustration il faut être fort mais yéen lépp caaxaan ngeen ko def lépp foola dara tekkiwul dara bakkan sax tekkiwul dara seen ci yéen bakkan parce que ñoom ñoo ko liggéey ci yéen ñom ñoko def ci sen subconscient ñom ñoo leen di téré xalat ñom ñoo leen di téré analyser ñom ñoo leen di téré réfléchir on balaa maa dee ñu toog ah oui national <laughs> ça me fait rire <laughs> deuil national Sénégal tout chaque jour deuil la chaque jour.

dañ leen a fàtte mouchoir à ci seen pancréas yi dañ leen a fàtte weñ ci seen tànk yi dañ leen a pikiir ñu lakaj lafañ dañoo ñëw indi ale seen pali ñu jox leen ñu jox seen mbokk yi ay néew Sénégal li hôpitaux yi li fiy génne ci ay moor rek yu ñu rey ak ay sabotage ak ay ñàkk toppatoo ay ñu feebar loolu chaque jour dëy la demal toog bunt principal ku ñëw nga xool ko gis nga bu dee dix ñoo dugg sept yi dinañ génn trois yi dañoo dee te bu ñuy ñëw dañ laa romb mun nañ laa sax nuyu ça va grand nga ne ça va mu dugg kuc kuc kuc kuc dugg sept génn nga ne waa ne trois yi yu ma romboon fii ñu ne de dee nañ ah waaw kay kenn ki lan la da doon accouché dee kenn ki lan la noo kenn ki dañ ko opéré mu mu raté keneen ki lan la non keneen ki benn ciseau lañ fàtte ci biiram <laughs> ah ah mbokk yi ñuy jël da ngay diis yu dugg siis yi génn kaar yee dee ci biir chaque jour chaque jour que Dieu fait Sénégal de national la chaque jour bu ñu boolee loolu semaine bi dina mat nu mu dee dee cent idées cent idées yoo xam négligence kese la. négligence médicale luy raye Sénégal day faje fii man amoon naa ko nekkoon naa Sénégal ndeysaan non docteur yooyu dañ ma doon ñu ne ma dama asma <laughs> billaahi ne dama Sénégal ma ñëw benn docteur ne non da nga asma booy jox ma ay pompe pompe may pompe ni kan kan pompe pompe bu weex kii ko nii te xam lan la dama dama amoon pali foog naa pali bi kuréel mooy nokk maanaam di def bruit docteur bi ñëw déglu naan ni maanaam nokki nokki maanaam maanaam rek mu jóg bind fëyam xoolal ne dama asma asma di ma jox ay garabu asma may naan pompe poñ poñ poñ ma ñëw Espagne quoi dem hôpital tubaab bi ñëw jël ma teg affaire yooyu ma leen noo dama asma quoi asma asma voilà asma kaa ñu ne ok may ñu tuuti ñu xool <laughs> mais dañ ma fa fekk xam lu ma noqul jóg jóg ñu sul jóg jóg jóg jóg jóg man lan la xamoo sax asma jege woo sax asma xamoo nu ñu asmee ma man Sénégal tut ñu rey ma fa ñetti at naan naa ay garabu asma di pompe pompe asma yi ne ma jógal jógal ñu sul ca kaw jóg sal jóg dara jóg noqul jóg oh, ma ne u booy sama xel mi di dem Sénégal ma naan mais yow mais ñii dañ ma yàpp ñii dañ ma doon rey billaahi deux mille dix deux mille huit deux mille neuf deux mille neuf Espagne lañ ma xamal ni yow asmo dara jotu la asmo dara te boobu laa gëj a dégg <gasps> boobu laa gëj am loolu Sénégal laa ko amee foofu laa ko bàyyi ci avion ba billahi musuma dal quinze ans maa ngi ci kaaw yi di wër àdduna loolu musuma ko dégg Sénégal laa ko déggee woon docteur bi ñu dégg nopp bi di déglu teg kiyum yooyu teg teg mu tegal la ko rek dugal ko ci nopp yi di déglu ah asma asma la asma non non da nga pali da nga pali euh, da nga pali nucléaire bindal la ay garab <laughs> rey nit duñu nit ma xeex ci combat bi ba damm damm docteur bi ñëw rek taxaw gars di xaar docteur bi ñëw ne nii loxo oh, defal ko foofu plâtre defal ko foofu plâtre ah waaye ji jël sama loxo bi yéen nii ndeysaan ci damm sama xeex de waaye di sama loxo rek jël ciment ba jaxaseeg plâtre ba tak tak def ndox jaxase jaxase jël benn affaire takkal ma takkal ma takkal ma jël affaire commencé raatale raatale ba sama loxo bi keng oh, dëgg diis këng këndëng ba loxo bi mënul bouger <laughs> oh, da nga ñëw dans ah, tous les quinze jours da nga ñëw fay euh, euh, mille cinq cent euh, nga ñëw ñu kii la booy sama loxo bi ndekete sama loxo bi dafa damm ba puus nii billaay te waa ji def na rajo de di xool rajo bi gisul sax loolu def na rajo rajo mu toog loo ma fay loo ma rajo ma fay rajo xaw ma cinquante mille xaw ma quinze mille xaw ma fàtte naa mais ñu duñu nit booy xoolal mu fay loo ma rajo mu xool rajo bi jëlal ma affaire bi dóoral ma ba mu diis kandang ba sama loxo bi sax mënul wàcc mënu ñu solal ma fii benn lonk ma lonkoog moom di dem ndaxte loxo bi nii la mel ma trois mois Sénégal may dem di ñëw yow ñu def saa yu ma ñëwee fay ñu defal rajo xool docteur oh non mi ngi avancé mi ngi avancé mais docteur boo xam ne yow xamu xooloo woon affaire yi ne yow da avancé non mi ngi avancé ma ne waaye sa waay docteur affaire mi bëgg a yàgg trois mois damm damm non mi ngi avancé mi ngi avancé mi ngi évolué booy yaana maar booy yaana maar booy booy bàyyi indi problème yi mooy booy yaana maar di ma wooyee yaana booy yaana maar xeex ci combat bi bay bëgg a dee booy yaana maar booy bàyyi indi hôpital principal ah booy yaana maar